الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد bokk jullit yi ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala moo ñu moom indi ñu ci kaw suuf ngir ñu daal di koy jaamu ngi seede na moom dong yeyoo ñu koy jaamu di seede it ne yonent yàlla muhammad ab jaamam la bu mu yónni woon ci ñun muy ku ñuy jàngal nu ñuy jaamoo suñu boroom yàlla yàlla julli ci moom ak njabootam ak ñi koy roy ba ila yawmi din gannaaw loolu mbokk julit ñu ngi fàttaliku tey benn xew-xew boo xam ne mas naa xew ci dundu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xew-xew boo xam ni suñu borom yàlla def na ko muy benn surite bu rëy benn ndëgërlaay bu rëy ñeel suñu yonent waaye defal ko yit nattu ñeel julit ña ak naafiq ya ak yéeféer ya xew-xew boobu mooy lan mooy xew-xewu li ñuy tudde al isra wala mi'raj amoon na benn guddi ci guddi yi suñu borom yàlla yebal jibril alayhi salaam mu ñëw ca makka fekk fa suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam mu waral ko ci benn daaba bu ñuy wax buraaq yóbbu ko ca jàkka ja nekk ca alqudus ca Palestine muy masjidul aqsa gannaaw ba mu jël ko yéege ko ca kaw asamaan yu kawe ya loole ab xew-xew la boo xam ni benn jullit amul droit di ko wetti ñu ngi noonu kenn amul droit di ko wetti donte ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala am na saar woo xam ne da ko ko ubbi mu ne sell day ñeel na ki nga xam ni moo doxali ab jaamam ca guddi jële ko ca jàkk bi ñu warmaal ba ca makka yóbbu ko ca jàkk ja gën a sori ca palestine jàkk jooju nga xam ne barkeel nañ lépp li ko wëru mi ngi noonu yàlla moomu day aji dégg lépp la aji xam lépp la lan la ñuy isra wal mi'raj di jëkk a fàttali mooy ñu màggal suñu boroom màggal goo xam ne day wane ne mooy boroom kattan gi nga xam ne lu ko neex mu def ko ñu dégg ci it ne mooy ka nga xam ne moo ittewoo ak jaamam yonent yàlla muhammad ittewoo goo xam ne sàmm na mu koy aar waaye di ko yëkkatee ko dolli fu mu mën a toll mbokk lan moo nekkoon jubluwaayu tukki boobee jóge natta dem Palestine jóge Palestine yëg kaw asamaan suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne ngiree ma wan ko lenn ci samay aaya naam keroog wan na yonent bi salallahu alayhi wa sallam ay kawtiif yu koy yokku gëm ci boroomam ay kawtiif yu koy gëmloo la yàlla subhanahu wa taala digle ci xiiwalu ña koy jaamu ak mbugalu ña nga xam ne ñoo koy moy suñu borom mu ne gis na ci kawtiif yi boroomam yi ci gën a mag loole nga xam ni dafa laajoon ak conférence spéciale bu ñuy jagleel tukki boobee lan la te yonent bi alayhi salatu wasalaam gis doonte ne bokk na yow daal julit bind yi nga xam ne danga ko ca jëli te bu ko fàtte mukk mooy yaa ngeeg borom boo xam ne moo am kàttan ci lépp yaa ngeeg borom boo xam ne li mu tëdd séri na àdduna utal ko ay loi yu muy doxe heure bu ko neexee ci kattanam mu daal di soppi loi yooyee loolu moo tax ba bokk na loo xam ne nii wan nañu ko safaraa ngi nii loi yi yàlla def ci moom mooy kun ci sànni da ngay lakk waaye keroog bañ jëlee Ibrahima sànni ca sawara wa suñu borom dafa indi contraire loi boobee sawara wa mujj nekk seddaay boo xam ne suñu borom dana ko kuuni bardan wa salaama nan ko def sedd ak jàmm ba borom xam-xam yi dañ naan bu yàlla ne woon sawara wa nekkal sedd rek ibrahima day glacé loolu it lañ gis kawtiif boo xam ne wone na koo keroog bi Moussa jëlee benn yàq dóor ko ca géej ga mu xar fukki géej ak ñaar ca loolu nekk ci ay lu ëpp téeméeri xarbaax yoo xam ne boo delloo ci alquran ak sunna da nga fekk suñu boroom di def lu ñuy tudde xar baax ay la adduna baaxawoon a gis mu xar ko baax looloo tax amul benn yenent bu yàlla mos a yónni lu dul jox na ko xar baax ay loo xamee ni nii dafay jéggi dayoo xelu doomu aadama yi borom boobu moom lay wax ne innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun moom day bu nammee mbir def nan ko ama rek mu daal di am moo tax naka la ci benn guddi nit mën a jógee makka wàcc palestine yéeg ko asamaani juróom-ñaar balaa fajara mu delluwaat makka bu dee nattuwaayu doomu aadama lu koy jaaxal la rawatina jamono ji nga xam ne avion xewul war waay yi xew léegi xewul naam kon bokk na lu ab julit di war a wax toujours la ibrahima alayhi salaam waxoon aalamu anna allaha ala kulli cheyin qadir xam naa ne day yàlla mooy ki am kattan ci lépp lu mën a doon waaye lan lañu isra wal mi'raj di jàngal danañu fàttali mbokk gëm la nga xam ne mooy kumpa kumpa bokk na ci ponki ngëm yi suñu borom yàlla daal di ubbee ab téeréem ci ne lii nga xamee ne di mooy alquran ji nekk na njub ñen ñi ragal yàlla lam jëkk a wax avant muy wax julli wala zakat daf na mooy ñi nga xam ne dañoo gëm kumpa mbokk lan mooy kumpa mooy koo xam ne nii ab xabaar dafa jóge ci yàlla wala mu jóge ci yeneen ci yàlla te sa xelu doomu aadama mun a caa yegg nga gëm ko loolu mooy gëm kumpa ndax lépp lu xelu doomu aadama démontré rek dootul kumpa kon gëm kumpa mooy loolu mooy jurit dañuy gëm ne sa bët bi daa am fu xoolam yem sa dégg bii li muy neex neex daa am fu dégg nga mën a yem naka noonu sa xel mi dafa am fu mu mën a yem duna li mën a nekk lépp la sam xel mën a yëg wala mën koo nangu abadan am na yoo xam ne da nga koy gëm rek waaye sa xel munu koo fexe ba fekk ko ñu ngi mel ne ruux yi nekk ci suñu biir yaram yi depuis quatorze siècle baka gaa yi laajee yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ne innama ruux min amri rabbi qul inna ruux min amri rabbi nee leen la nga xam ne mooy ruux moom ci mbiri yàlla la wama utitum min al ilmi illa qalila ndax li ma leen may xam-xam yéen doomu aadama yeggul ci ngeen mën a comprendre lan mooy ruux loolee kon mbokk muy gëm la nga xamee ni nii mooy en kumpa looloo tax ba suñu borom indi na al isra wal miraj bi mu ñëwee nattu ci julit ñi ana kan moo ciy gëm directement gëmin bu gaaw ak kan moo ciy sikk sàkk ak kan moo ci dolleeku la nga xam ne muy ak kéeféer waaye mu bokk it bindee ba nga mën a jële ci isra wal miraj mooy màggaay suñu yonent salallahu alayhi wa sallam yonent boobu nga xam ne suñu borom yàlla teral na ko yéega ko ca kaw asamaani juróom-ñaar foo xamee ni nii benn mbindaa sonu yàlla mosu faa yegg bala borom xam-xam yi di firi wama minna illa lahu maqamun maalum jibril alayhi salaam moo ànd ak moom ñu bëgg asamaani juróom-ñaar yegg ca sidratul muntaha jibril na ko ah léegi nag muhammad man fii la ma yàlla mën a yemloo samay daraje fii la yem yàlla yëkkati ko ci foo xam ne benn mindaakan mustafa yegg sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te it kenn dootu fa yegg donc ne buy déglu rajo yi télévision yi suñ caam suñ beng suñ saar ñoom ñëpp def nañ isra wal mi'raj ñu ngi noonu loolee mbokk suñuy mbir la rek ak suñuy théâtre waaye fa yonent bi yeggoon gannaaw ba amul kenn ci jaami yàlla yi ko ko mas a woote woo ca bokk ci nit ñi nga xam ne dañoo gëm ay waxam mbokk mi ngi noonu donte ne ne loolu it suñu borom yàlla mi ngi ñu cay won ay kawteef yoo xam ne ba ko suñu borom booleeg malaaka ya ba ko suñu borom booleeg yonent ya ñoom ñépp mu jiite leen loolee lan lay firi moom mooy imaamu yonent yépp te it tamit daana wax ne xam leen ne day Moussa alayhi salaam bu ñëwaatoon ci kaw suuf amul lenn lu mu mën a gërëmloo yàlla lu dul topp sama gannaaw daana wax it ne maa ngi waat ci ki nga xam ne sama loxo mi ngi sama bakkan mi ngi ci loxoom amul benn yahud wala benn nasaraan bu may dégg ne yàlla yónni ma yónni na ma ba pare mu bañ maa gëm lu dul ne bu dee sawara la jëm te loolu yàlla nga koy saddali ci téeréem bu tedd bi inna alladina kafaru min ahli alkitab walmushrikina fi naari jahannam képp ko weddi yonent yàlla bi sawara la jëm waaye bokk na mbokk bind yu mag yoo xam ne itamit war nañ koo jële ci isra wal miraj mooy suñu yonent boo delloo ci téere yàlla bu tedd bi yàlla du ko woo mukk di ko jaarale ci aw turam lan la koy wax yaa ayuha nabi yaa ayuha rasul mi ngi noonu waaye bi nga xamee ni nii mi ngi koy jël di jaarale ci moom ay xarbaax yoo xam ne xam na ne lenn ci doomu aadama yi kum gis nga def lu nit ñi mënul rek ñu bëgg laa teg place yàlla moo tax suñu borom dane subhaana alladi asra bi abdihi foofu daa utiliser daa di leeral ne ab jaamam la doonte ne ne xar la baax te la ngeen daan def ci weer diggante Makka ak Palestine mu def ko ci benn guddi xar la baax bëgg na juróom-ñaareelu asamaan waaye loolu teewul ab jaam keesa la du ku ñuy yaakaar du ko ñuy toroxlul du ko ñuy xettilikoo seen borom yàlla mooy benn ngir loolu lépp musal julit ñi ca la chrétien yi daal di tabbi mooy maggal isa bnu maryam ba teg ko place yàlla suñu borom it fedd bi loolu ci téeram bu tedd bi qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid nee leen man nit laa comme yéen yàlla wëluyu na ci man ne ah seen borom bi ngeen di war a jaamu benn borom la na am bokk mi ngi noonu waaye ci la nga xamee ni nii mooy guddi gu màgg googee yàlla yëkkatiwul ab yeneen tam bokk na lu ci julit ñi mën a fàttaliku mooy guddi googee ko yàlla yëkkati te place ba gën a kawe ci place yi te la farataal moom lii nga xam ne mbokk muy julli julli gi nga xamee ni nii yàlla subhanahu wa taala avant yonent bi ci nimbi si ñëw na boole koo ki mbooloom yonent mu jiite leen ci mbooloo danañu jàngal lan mooy wàccuwaayu julli ak rawatina it julli ca mbooloo ma ana ban taxawaay la am ca la nga xamee ni nii moom mooy diineen islaam waaye mu jàngal la it ne ndekete amul benn diine bu yàlla mos a yónni ci kaw suuf lu dul julli am na ca depuis yàlla di yónni ay yonentam babaaki ci mu jëm di yonent yàlla muhammad loolu it nga la way yow doomu julit bu la kenn yóbbu ci diina joo xam ne julli amu ca wallahi musul am ci kaw suuf du ca yahud ya du ca nasaraan du xawmu hud du xawmu luut du benn xeet bu yàlla masa yónni ci julli bokku ca nga la waay it naa nga lay dénk nga la waay ngay góorgóorlu ci julli mbooloo dayoon na ca rek nga xam ne julli goo julli ca mbooloo ma gën na ñaar fukki yoon ak juróom ñaar julli ga nga julli sa kër bu dee yow mi nga xam ne da ngaa gëm yàlla gëm alaxira moom la yeneen ci bi alayhi salaam ne suñu demee yowmal qiyaama loolu la ñuy yàlla di jëkkalaat ku say julli rafet yàlla ne baal leen ko la ci des ku say julli ñaaw ñu xool sa mbir yépp ca ku ñu xool sa mbir yépp mbugal la moom la yeneen ci bi alayhi salaam mujj dénkante kare bu ñuy sukuraat ñu ngi naan maa ngi leen di dénk julli maa ngi leen di dénk julli dénk leen ngeen def njëkk ci ñi nga xam ne yéene leen yilif loolu kon bokk dañuy fàttaliku waat al isra wal miraj bokk na lu ñu war a gën a góorgóorlu waat mooy nemmeeku sunu bopp ci julli waaye nemmeeku njaboot gi ci julli galla waay nemmeeku leen seen njaboot ci julli galla waay yéen père de famille yi rawatina ñi ci am njaboot bu jigéen xoolal sa doom col gii muy sol di dem yoonam ndax bu julli jotee dana mën a julli quatre-vingt-dix pour cent ca ñoom tonte ba mooy laa wallahi loolee kon musiba la yu tegoo ci kaw musiba suñu borom mu ne wa'mur ahlaka bis salaa wastabir alayha digalal njaboot gi ñu julli ca nga mun ci julli googe ca loolu mooy lépp luy sabab lu koy taxawal ngeen taxaw ca ca bokk na la ca gën a am solo sutural awra julli ca waxtu wa julli ca laab ga waaye it xam booy julli lan ngay wax ci biir julli ga waaye mbokk bokk na lu ñu isra wal miraj di jàngal ba tey lu tax suñu borom yàlla bi muy wax mbir bi mu ne sell ñeel ne ki ja jële ab yeneen tam te jàkka ja nekk ca makka yóbbu ko ca jàkka ja nekk ca aqsa jàkka jëm ci jàkka loolu mooy lan mooy ndekete wàcc waayu julit mooy jàkka nga la waayu julit yow mi nekk sa kër sa ja julli yi ñuy julli sa jàkka yi kon bu mu rëcc yow mi nekk ca liggéeyukaay ba jàkka ja gën a jege sa atelier bu mu rëcc yow mi tukki dem bitim réew nemmeeku jàkka jooy mën a jullee lu waral loolu mooy jullit daluwaayam moom mooy jàkka jullit këram gi gën a mag moom mooy jàkka comme naka yonente bi alayhi salatu salaam waxawoon al masjid baytu kullu taqi loolee di mbir moo xam ne ku nekk war na caa bàyyi xel sunu borom yàlla subhanahu wa taala ne bokk na ñi gëm yàlla gëm bi su ci day mooy ñooñu nga xam ne dañuy dundal jàkka yi ay yéen mbokk jullit bokk na it loo xam ne nii daan ko jële ci isra wal miraj mooy ñu fàttaliku jamono boobee ko suñu borom yàlla subhanahu wa taala di tëral la nga xamee ni nii moo taxoon mu def ko mooy doon koo xamee ni nii dafay dalalaat suñu yonent salallahu alayhi wa sallam gannaaw ba waa makk jóoree ci moom ay natt yoo xam ne kenn xamul nu mu toll yàlla yëmul foofu de ki nga xam ne moom mooy soxnaam bi ko dalaloon ci alalam ci léppam suñu borom yàlla subhanahu wa taala jël ko muy xadija yàlla yëmul foofu de bàyyim abi talib bi nga xam ne moo ko aaroon ci darajaam ba waa makk ñi mu ñoo dal ci moom yàlla daal di koy jël yemul foofu de mu jóge fa ne day yem taif ngiree sàkku ji sa ndimbal ba mu demee ñu daal di koy reete boole ko ak golo yaag dof ya ñu sànni ko ay xeer ba tànkam ya di tuur deret lii lépp mbokk taxoon na ba at boobu ñu tuddee ko amul xusn muy atum tiis ma ca la ko yàlla subhanahu wa taala nag di dalale xelam jël ko yëkkati ko yóbbu ko ci daraja yoo xamee ni nii ca daraja yoo gën a kawe la bokk ngiree xamal ne ko kat su dee ne yow waa suufit xatal nañ la su dee ne yaa ngi dund ay jafe-jafe xamal ne sa borom yàlla day yaa ngi ànd ak ngërëmam ca it mbokk julit loolu nga war a tiire ay leçon dañ laa jàpp tëdd ca kaso ba da ngaa tëdd ca lalu hôpital ba jaaxle gu la mën a dal ci ñàkk jaaxle gu la mën a dal ci fitna xamal ne yonent yàlla ba day suñu borom dajale woon na ci moom lu gën a tar lim la dajale et pourtant loolu teewul yàlla feeñal ko ngërëmam feeñal ko ay darajaam yonent yi màggal ko malaaka yi màggal ko looloo tax ba julit xamal ne benn musiba da nga am musiba bi am mooy sa merum boroom tant que yow xam nga ne nekkoo ci sa merum boroom leneen lu loo mën a dal yiw la yonent bi alei salaam mu ne ajaban li amri lmumin inna amrahu kullahu lahu xayr ak yéeme mbiri julit léppam yiw la ci moom natt yi dal ca njaboot ga ca bakkan ba ca alal ja lépp yiw la ci moom loolee mbokk la julit war a bàyyi xel waaye it nga bàyyi xel ne yàlla mi xëcc li woon sunu yenente sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla moom mi ngi fi ba tey ngan la waay natt bu la mën a dal dellul ci sa borom subhanahu wa taala ñaan ko mu teggil la ko waaye it bu la fàtte ne natt bii day mi ngi lay xaar ca kër gu màgg ga kër gii ñu nekk kërug natt la kërug jaaruwaay la waaye fa ñu yaakaar dëgg mooy alaxira te natt bu la yàlla mën a tege fii wallahi lum gën a màgg pay la lay xaar ci alaxira gën a màgg yombal nga lay xaar ci alaxira gën a màgg looloo tax suñu borom yàlla subhanahu wa taala dañuy wax ne mu moom am xasibatum an tadxulu ljanna walamma yatikum masalu alladina xalaw min qablikum mastathum albasaau wadarraau wa zulzilu xata yaqula arrasulu walladina amanu maa mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib moo tax jàpp ngeen ne dana yomb rek ngeen dem ajjana te tegu ma leen natt yi mel ne dama tegoon ñëpp jiitu woon daloon na leen ay ñàkk yu tar ay guerre yu tar ay feebar yu tar yëngaloon naa leen ci ay fitna yu leen yéefar ya nafiq ya tegoon ba yonent yàlla ba ak ñum àndaloon di wax naan mu kañ la ndimbalu yàlla di ñëw xam leen ne mbokk ndimbalu yàlla day lu jege la loolu it la ab julit war a gëm inna ma al usri yusra heure boo xamee ne jafe-jafe dal na la nga xam ne ci yàlla nu jógee te it yombaluk yàlla moo gën a gaaw lépp loo xamee ne nii teg nekk na ci yow ci jafe-jafe mbokk julit bokk na mujj bi bind bi ñuy mujjee ci li nga xamee ni mooy xaadisa bi amoon ci isra wal miraj yeneen ci yàlla bi xëy na suba bi mu xëyee suba lenn ci yéeféer yi jëkk a dajeeg moom ci benn li borom téere yi nettali daje nag moom kii di abu jahl ki nekkoon buuru makka ne ko waaw muhammad lu bees mu ne ko lu bees tey mooy diig yàlla jëri na ne fii yóbbu ma Palestine yéega ma kaw asamaan yi mu ne ko tax bu ma woo waa makka da nga ko wax seen kanam mu ne waaw waaw mu daal di yuuxu waa makka ñëw mu ne dégg leen li muhammad wax tey nag la ñi ko topp ñëpp di xam ne ab dof la ndax nee na jóge na fi dem Palestine yéeg kaw asamaan na am bokk na loo xamee ni ni benn waay jóg na ne ko ah nga ne demoon nga Palestine ñun day sunu njëgg muy caravane ñun xale yi sunu njëgg day mi ngi jóge woon Palestine fu ñu toll yeneen ci bi alayhi salaam ne leen ñi ngi toll place tel bi ci guddi seen benn gileem réeroon na wër nañ ko ba mujj koo gis yàlla ñuy dogal naka yeneen ci bi wax woon noonu la amee ci kattanu yàlla jënd waala waaye mbokk loolu bi mu amee ñenn ñi naafiq yi ñoom seen mbir daal di leer jullit ñu doon dëng dëngi dellu gannaaw amma jullit yu dëgër yu sax ya da leen a dolli ngëm ban demee wax ko Abu Bakar Saddiq daal di ñëw ñu ne ko waa Abu Bakar nag tey looy wax ci sa waa ji mu ne leen de naa leen di yëgal in kaana qaala faqad sadaqa su dee moo ko wax day wax na dëgg di ay baat yu gàtt yu jullit yépp waroon a bind en or ci seen buntu nekk su dee moo ko wax ca mbokk ak a bëri tey lu ñuy waxal yonent yàlla ci waxu ko ak a bëri tey lu nit ñi di kër këri di ko jaamoo yàlla di ci dépensé ay millions ca wallahi yonent yàlla waxu ko yonent yàlla xamu ko ay sahabam xamuñu ko waaye itamit ñaareelu kàddu gi mooy ah faqad sadaqa su dee moo ko wax moom dëgg la julit ndokk ñaar yooyu lay boole du jaamoo yàlla lu dul lu wér na yonent bee ko wax waaye mu xam nit lu yonent yàlla bi wax loolu muy dëgg lii rek muy dëkk loolee mbokk yi tamit dañuy xam ne ñu ngi màggal isra wal miraj li ëpp ci adduna bi tey dañoo jàpp ne guddik tey bii ñu jëm la doonte ne nañ koy màggale wuute na am na ñu koy màggal ngir yonent bi demal na ci kaw asamaan am na ñu koy màggal ngir leneen waaye mbokk li ma leen di seedeel doo dellu ci sunna yonent bi alayhi salatu wasalaam doo dellu ci téere yu borom xam-xam yi du Malik du Bukhari du Shafii doo dellu ci ñépp ni ñuy sukkandiku ci diine ñu ne la yonent bi ci sahabaam guddi sangam dañ ko doon màggal ngir Isra wal Mi'raj boo delloo ci téere yi dañoo wuute ci ban at la amoon wuute ci ban weer la amoon ñii ne weeru koor la ñii ne rabiul awal bi yonent bi judd la ñii ne rajab la ila axiri waxumaa nag ñuy doog a wuute ci ban guddi la amoon looloo tax yow julit lan mooy sa taxawaay ci isra wal miraj wallahi démb rek am na benn soxna bu baax ñu ngi yónni doomam di ma laaj guddig isra yi kañ lay doon waaye mbokk julit li ñu lay wax guddig isra ku la wax ne guddi sangam la day wax lu ko neex tegu ko ci xam-xam waaye même bu doon xam nañ ne guddig tey la nañ xam ne moo guddig bi ak guddig bërki bi ñoo yem ci ñun nit l'islam ndax amul benn jaamu yàlla boo xam ne am nga droit jagleel ko ko te yonent bi daawu ko def ay sahabaam daawuñu ko def la gën ci la ñuy jaamoo yàlla mooy yem ca doyloo la yonent bi ak i sahabaam nekkoon wallahi képp ku ca nekk jub nga suñu borom subhanahu wa taala lii mooy la nga xam ne ni moom la ñu sant walladina jaau min baadihim walladina ittabauhum bi ihsan mooy ña nga xam ne ñoo topp gannaaw sahaaba ya lii rek mbokk moom mooy diine yal na yàlla subhanahu wa taala wërsëgal ñu mboole mi bind yi nekk ci isra wal miraj yal na yàlla wërsëgal ñu gëm ko ci jëfe ko yàlla mi xecc leen ab yeneen tam yal na yàlla subhanahu wa taala xecc li ñu yàlla ñu yëkkati woon ab yeneen tam yal na yàlla yëkkati ñu yal na yàlla boole ñu ñoog suñu njaboot la gën a màgg ci isra wal miraj muy julli yàlla nañu yàlla boole ci ñuy taxawal julli yàlla ci yàlla boole suñu njaboot te nangoo ñu ko yàlla yàlla xetti li ñu ci fitnay àdduna ak fitnay alaxira yàlla yàlla defal ñu aafiya fi dunia wal axira yàlla yàlla defal ñu firdaws muy suñu wàccuwaay اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين